dal leen ak jamm ci rubrique bi ñu duppé ñuy waxtane mbass yi fi daan am té niroo lool ak coronavirus teyit musiba ak ñakara rek la massa tabal aduna bi ndax doomu adama yu bari yu ñak seen bakan aduna ko mana a juy luy wéy la ko mana a juy loolu wane ni mbas mu fi masa jaar rek yóbbu nga lu gàtt gàtt ay junni junni doomu aadama daal di leen di faat jamono ji nag àdduna wërngal këpp ku ni tiitul tamit da ngaa xamul wala sax am na ñoo xam si dem sax bay wax ni ji di coronavirus bi nekkul lu am waaye nak bu nu gëstuwaatee taarix dina nu xam ne mbas yu mel nii yàgg na am ci àdduna wërngal këpp boole ci nag daan faat millions yi doomu aadama firnde li ci atum 1720 jàngoro ju nuy wax peste moo feeñoon ca France rawatina ca Marseille ay fan yu ya fa def rey na fa téeméeri junniy doomu aadama ba réew ma sax foogoon ni àdduna day bëgg a tukki safara soog caa juddu lu ni melit lanu nemmeeku ca atum 1820 gannaaw ba jàngoro ji di choléra feeñee ca Indonésie Thaïlande ak Philippines faat fa itam lu toll ci junniy doomu aadama ñoom it demoon bay wax ne yàlla sunu borom moo wàcc ci seen kaw yamul foofu ndax atum 1920 feebar bu gën a bon gën a soxor gën a garaaw gën a metti wàccoon na ci àdduna bi ñu koy wax influenza di feeñoon ca réew mii di Espagne nekkoon catastrophe mondiale ci doomu aadama yi li ko waral moo di la ca faatu woon toll na ci téeméeri millions yi doomu aadama te booba kenn mënu ci woon dara tey nag di atum 2020 beneen jàngoro bu bees nekk meneen mbas wàcc ci kaw àdduna bi amit ñu koy sikki sàkk ñu tuddee ko coronavirus covid 19 feeñe ca réewum Chine faat fa lu ëpp junniy doomu aadama ba laalaale réew yu ëpp doole ci àdduna bi ñu mën caa jàpp États-Unis d'Amérique Espagne Portugal laale itam réew yi nekk ci déndu Afrique fu ci mel ni Algérie Tunisie ba ci réewum Sénégal lii lépp nag doy na sëkk ñu xam ni jàngoroy coronavirus lu am la te it day faate li ci yéeme te taarix wane ko tamit moo di ne jàngoro yu bon yi yëpp ci chiffre 20 lay feeñee seetlu gi moo di peste atum 1720 la génnoon choléra atum 1820 influenza atum 1920 coronavirus bi moom atum 2020 la daal di feeñ li ci doy waar nag ba fii moo di ne ñoom ñëpp lenn rek moo leen boole moo di virus te jangoro la joy walé gawa walé lol li lepp nak di wané ni mbass yu bon yi dem bay faati doomu adama yag na fi gannaaw peste choléra influenza bilion japp len ni jàngoro coronavirus bi mo fi yexi si te it ci la bokku nekkit jangoro jo xam si tang jër la def ndax dafa gawa walé ba di faati bakkan lol rek doyna seuk ñu wara top digalé keur docteur yi te yok moytu gi dembu fi lañu ci yam ak yeen ba benen yoon ci benen waxtaan jërëjëf Serigne Saliou sekk di ko gërëm bu baax ci taarixu démb histoire baa ngi noonu Pape ma jaxate mu mel ni lu yàgg ak àddina bi la waaw